بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين noo ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di julli di sëlmal ci sunu bi yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bindab tey bi li nekkoon sunu yéene mooy def ko fàttali ci image bi nga xam ne moom la ñuy gis am na nag ay jubluwaay yu bare bare yuñ ci am ci biñ koy def awalan mooy jariñu ñun ñi koy def ñaareel mooy jariñ suñuy mbokk ñetteel bi mooy yëg gu nu yëg ni ay jaam lañ ba borom bi subhanahu wa taala moo ñu moom te laa shakka ni danañ ko wuy ji loola moom gëm ko ak gëmantu ko ak gëm ko gëm ko wér ak gëm ko gëm ko des moo wuutale jaam yi ci loolu waaye amul kenn ci ñun mbokk yi lu dul bis dana ñëw dana wuy ji boromam subhanahu wa taala loola nag mbokk yi di toog di ci xalaat léeg-léeg du ma wax sax léeg-léeg waaye bis bu ne ndax comme xamuñu kañ lay dikk di toog di ci xalaat ci bis bu nekk dafa am solo lool dafay dimbali aji gëm yàlla ji ndax seytaane kat ak bakkan bi dañuy bëgg doomu aadama bis bu nekk maanaam muy gën di féetféetlu di gën di xalaat àddina waaye bañ di waajal àllaaxira bakkan mbokk yi li gën a gaaw ci not ko ak yeew ko mooy di ko fàttalikoo dee ak àllaaxira lii moom képp koo xam ne ngëm gi yàlla subhanahu wa taala soxla ci aji gëm yàlla mi ngi ci moom na yëg ni jatan gi gën a dëgër te gën a gaaw ci yeew bakkan ak nat not ko ak naj ko ak jaarloo ko ci fiñ bëgg mu jaar fa mooy di fàttaliku dee ak àllaaxira muy ay réalité yoo xamante ni ñun ñëpp wér nañu ne day am moo tax yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yaroon ca saxaaba ya ba gis ngeen xadiis ab Abdullah ibn Umar boobu yonent yàlla bi di ko wax kun fi dunya ka annaka garib nekkal ci àddina mel ni ku tumuranke wala kuy jaar ci yoon abdullah ibnu amar moom teg ca tegal ca boppam ni man sax ni may def mooy dama cay dolli ni saa boo yeewootee bul programme ni ngoon dana la fi fekk saa boo fanaanee bul jàpp ni suba dana la fi fekk programme bii de maa ngi gëm ni képp ku ko yore bu la yàlla dimbali di nga jaar ci yoon bi image yi ñuy gis nag man de yàlla seede na ni dama ko li ma ko seetaan su fekkente ni mën na maa dogg ci ni mat na fanweer yoon image bii ngeen jàkkaar lool ñu fas yéene ko tarjama ci wolof man ci sama jëmmi bopp li ma ko seetaan ëpp na fanweer yoon loolu moom wéer na ma te wallahi yoon wu ca nekk dama yëg ci sama xol loo xam ni man daf daf ma yéem ah ma xalaat ni waaw su nekkente ni man mu doyee dik ngëm mii maa mën a yëg loolu ci image yu mel nii ndax am na man am na lu may fàttali lam may fàttali ne kooku sama mbiri boppaa man ma jàpp ni man mu doyee di mi su fekkente ni lii mën naa koo xool lu mat fanweeri yoon te doomu aadama lépp lu muy xool di ko xoolaat bu yàggee war na koo sàppi te lu ëpp fanweeri yoon ma di ko xool te saa su ma ko xoolee mu am lu mu def ci man loola man la concerné loola jox ma ni lii daal gëm naa ni kon war naa mën a jariñ keneen ku dut man ca noonu ñu jàpp ne xëy na ñu dégg arab bariwul te tomb bi may njëkk a fàttali rek mooy ñu yëg ni mbokk yi wallahi image yi ngeen di gis kii wax li muy wax moo gën a daw yaram man loolu ma ci gën a yéem xëy na ki nga xam ne déggul arab bu ko doon suivre image yi muy gis moom dafay am lu muy def jeexintal ci xolam waaye man ci sama jëmmi bopp man jeexintal yi ma yëg man li ko def ci man du image bi déedéet waaye li ko def ci man mooy wax ci wax ji nag comme ni ko borom xam-xam yi waxee imam zeynul abidin al husayn ibn ali bayit yi nga xam ni waa ji moom la jël di ko way mu ànd ak image yi moom moo ko doon way muy zeynul abidin di sët ci imam ali ibn abi talib kon wax yi ni mu amee solo ak ni mu mën a nootee xol te lépp di dëgg ah nu foog ni bu nu ko boolee tekki ko ci wolof xëy na bu yàlla dogalee ñu mën koo boole ngir ñu koy déglu ci waxtu wu nekk mën koo jariñoo amaan na borom bi subhanahu wa taala bindal nu ci yiw te loolu lañ ciy séentu ñaareel mooy ñu mën cee jëriñu te loolu mooy jubluwaay ba faf kon image bii ñuy gis moom lañ am yéen a tekki ci làkk wi nga xamante ni moom la ñuy dégg bu nekkee neex na sunu borom subhanahu wa taala kàttan xawla ak quwwa moom amut ci benn jëf boo xamante ni ñu ngi ko cay def lu dul dañuy gëm ni moom rek moo nu ko mën a may moo tax moom lañ koy ñaan di tàmbalee ci turamu màgg wi nga xamante ni lépp luñ ko tàmbalee rek loolu mucc na ayib insha allah mën ngaa def
ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهى عن غريبا حال غربتنا الدهر ينهره بالذل والمحن
kon gis ngeen mi ngi tàmbalee ci laysa algaribu garib alchaami walyamani inna algariba garibu allaxdi walkafani inna algariba lahu xaqun li gurbatihi ala almuqimina fi alawtaani walkafani mu ne laysa algaribu garib alchaami walyaman tumuranke day nekkul mooy tumuranke ci chaam wala tumuranke ci yaman muy ñaari dëkk yu nu xam yu siiw loolu tamit nekkul mooy tumuranke dem ci dëkk sàngam xamoo fa kenn déedéet nee na loolu du tumuranke waaye tumuranke dëgg dëgg dëgg mooy waa ji nga xam ni moom moo tëdd nag tey nga xam ni moom amut kenn kenn ku nangoo mbokkootee ak moom parce que faatu na muy ndaxte nit bu fekkee dafa dem ci dëkk jàmbur mu tumuranke fa ak lu mu wéet wéet wéet dina mas a dajeek nit ku am yërmande koo xam mën na koo fat ndax ay nit ngay fekki waaye ay doomu aadama tamit ngay gis mu teg ci ne laa tarhan laa tanharanna gariban xaala gurbatihi jërul ngay gëdd koo xamante ni ak di ko arsale moom dafa tumuranke ci jamono ba mu tumuranke ndax bu dee tumuranke ak àddina gii day torox ga ngay torox ñàkk gis koo wéttali ko loola doy na torox tànge waaye kii tëdd tey tigi nag moom mooy ki nga xam dafa tumuranke parce que kenn dootul nangoo mbokkooteeg moom kenn dootul jéem a xamantee ci ak moom ndax doo xam fan ngay jaar waaye kenn dootul ànd ak moom tamit kon nit ki fu mu mënti dem dana gis ku ko wéttali gis ñu mu wéttali ko gis nu mu jàppalanteel waaye tëraay bii de mbokk yi moom mooy tëraay boo xam ni mooy tëraay yëpp tumuranke dëgg moo tax seytaane du la bàyyi ngay xalaat comme ni ma ko waxee sànq tëraay yu mel nii lu tax parce que tëraay yu mel nii dafay not sa xol imaam ju mag ji ñuy wax xaatim xaatim moom day wax ni man saa su ma yeewoo rek iblis danaan ma waaw yow looy lekk tey yow looy sol tey yow fooy dëkk tey waaye mun mu ni saa su nee ma looy lekk tey ma ne ko deelaa fas yéenee añee tey su nee ma looy sol tey ma ne ko perkal biñ ma nar a sàngee laa fas yéenee sol tey su nee ma lu- foo fas yéenee dëkk doo tabax kër mu ni ma ne fas yéene naa dëkk ci kër gi bàmmeel bi nee na wax yooyu may wax sama bopp su ma paree di ci xalaataat bu dee loo lekk la sama xel day xalaat mën naa fee dee fii ak ngoon kon lu ma lekk du ma tax a jàdd du ma tax a moy su fekkee daf maa wax ni looy sol tey sama xel nekkee ci nara lebi lu ma sol wala yu demee noonu sama xel dafay dem ci kat mën naa koo leb ba noppi te duma ko sol perkaal laay sàngoo su fekkee laaj na ma foo dëkk looy dëkk su ma naree sonn ci dëkkuwaay sama xel dafay daal di daj ci ni mën naa dëkk biir bàmmeel ndax néeg la boo xam ne wir na ni du ma ko xëccoo kenn te kenn du ko xëccoog man kon yooyu xalaat moom la aji gëm yàlla ji war a am image bii nag mbokk yi dina répété waat lu bari baat bii mu tàmbalee muy laysal garibu garibu shaami wal yaman dina répété waat lu bari waaye yëgal ni yëgal ci sa xol jamono bi nga toog ni kii tëdd moom mooy yow loolu daf lay jottali wax ci kii tëdd jàppal ni yow la moom bu nekkul yow it dina nekk yow dafa bokk ci li lay jariñ mooy nga gëm ni kii tëdd léegi man la léegi comme man la nag léegi lan moo des ndax man jot naa def lu baax doog a tëdd nii ndax man li ma def ci ay safaan jéggalu naa ko doog a tëdd nii est-ce que bi ma ko jéggaloo jéggal nañ ma ko ma doog a tëdd nii
نثري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن
ngeen mu ni safri baidun wa zaadi lan yuballiguni mi ngi nii tëdd mu ni man de maa ngi nii tëdd day tukki bi ma jëm sori na lool te wér na ni sori na mooy tukki bu àllaaxira ba tukki bu sori lool la mu ni tukki bu sori laa jëm te it wa zaadi lan yuballiguni lan yuballigani li ma yor ci yóbbal de doyut wallahi doyut ndax àllaaxira dafa sori lool mu ni wa quwati daafat wal mawtu yatlubu nii tey sama néew kàttan néew na te deekat mi ngi may dàq te dàq ga dana ma dab mu ni wali baqaaya zunubin lastu aalamuha mu ni maa ngi am ci ay deseti bàkkaar yu bare bare bare loo xam ne man sax xaw ma num toll allahu yaalamuha fi sirri wal alan yàlla de moom xam na bàkkaar yi num toll bu dee ba nga koy def da nga doon nëbbatu ak di yeelu yàlla moom xam na bu dee ba nga koy def da nga doon béral ak di wax ca kaw yàlla xam na moo tax mu ni maa ahrama allaha anni xaytu amhalani cay yàlla de kenn gënu koo lewet kenn gënu koo baax ndax moom day mi ngi ma fi bàyyi rek may def ay moy di def ay bàkkaar wa qad tamaadaytu fi zambi wa yasturuni ma continuer def ay bàkkaar te yàlla subhanahu wa taala mi ngi may suturaal mbokk mi xoolaatal yow comme ni ma ko waxee kenn ku nekk ci ñun na jàpp ni moom mooy ki tëdd nii tey image bii nga fàttaliku li nga ci doon def ci ay bàkkaar nga ni kat waaw tey maa tëdd nii est ce que bàkkaar yi tuub naa ko est ce que jéggal nañ ma ko nga xool yàlla sutura si mu am ngay def ay bàkkaar mu bàyyi la nga continuer ci waaye mbokk yi li gën a triste mooy bàkkaar yi waxtu wi nga tollee fii dootoo ko mën a jéggalooti te même boo jéggaloo yàlla du la ko baal yent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam buntu tuub de tëjal nañ ko tëj nañ ko ci ñetti barab bokk na ci mooy kii nga xam dafa toll ci sukuraat wala kii nga xam mi ngi tëdd même bu tuuboon ak lu tuub gi jekk-jekk lu mu baax baax borom bi subhanahu wa ta'ala du ko nangu waaye xoolal kii tey mooy tukkeem dafa sori wallahi wax na dëgg ca yàlla la jëm tukki bu sori la xoolal ba nga juddoo ak tey imam Fudayl ibn Iyad dafa dajeeg benn waay ni ko ñaataat nga am waa ji mu ni ko am naa juróom benn fukki at mu ni ko allahu akbar juróom benn fukki at yaa ngi dox jëm ca yàlla te yëggagoo waa ji daal di yuuxu bi mu yuuxoo mu daal di koy wax ni ko ah man de gëm naa ni yàlla mooy sama borom mu ni ko est ce que xam nga loolu lu muy tekki mu ni ko déedéet mu ni ko la muy tekki mooy ku gëm ni yàlla mooy sa borom gëmal ni tëraay bii tey di nga ko mës a tëdd léegi boo ko tëddee nag borom bi dana la laaj la nga doon def la ca baax ak la ca baaxut loolu kenn ku nekk ku koy bàyyi xel bis bii yaakaaruma dana la bett incha allah
أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلة ذهبا يا حسرة لقيت في القلب
mu ni tamurru saaatu ayaami bila nadamin sama bis yi mi ngi romb rek saaatu ayaami mooy heure yi ne ci bis bi mi ngi romb rek di dem bila nadamin te réccuuma li ma doon def ci ay bàkkaar wala bukaa'in wala xawfin wala xasanin heure yaa ngi dem te mayit nekkuma koo xam maa ngi réccu wala bukaa'in jooyuma ci samay bàkkaar te xam ngeen mbokk yi nit ki wéet foo xam ni kenn nekku fa wala moom ak yàlla rek mu yëg ci xolam fàttaliku dajeeg yàlla wa amma man xaafa maqaama rabbi wa naha nafsa an il hawa fa inna al jannata hiya al mawa nit ki toog di xalaat bis bi muy njëkk a dajeeg borom subhanahu wa taala loolu tiital ko mu jooy ca loola yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bët boobu de yàlla du ko lakk ci safara wala bukaa'in mu ni jooyuma wala xawfin tiituma wala xasanin jàquma wallahi mbokk yi bërki démb ñu ngi am mbokk muñ doon suul maa ngi koy wax mbokk yi ci armée li ma ni leen gis nga coow li li muy bari bari dañoo nekk di gis suñuy mbokk rek làmp yee leer rek wax ji xumb rek waaye fii nu taxaw ci armée yi mu wóor na ni fii moom luñ fi doon coow coow yëpp coow yegsiwul fii foofu mu amul coow foo fayanti ko rek jox la sa yëf nga dem sa yoon la amul wax yu bari dama ni foofa coow yu du fa yegg te képp koo xamante ni mi ngi yaakaar ni am na lenn ci cëri yàlla yi ci ci ci ci cër yi nga xam borom bi subhanahu wa taala moo ko moom muy ay melokaan wala yëpp dama ne bu duggee bàmmeel melokaan yëpp dana ko weddi loolu te kenn du ko weddi gis ngeen ci alquran tallahi in kunna la fi dalalin mubin id nusawikum bi rabbil alamin parce que dañoo gis dëgg kon nit ki nay bàyyi xel wala xasan di tiit ci ay bàkkaaram wala xawfin mu ni ragaluma tamit mu ni ana alladi ugliqu l abwaaba mujtahidan man de maa ngi nii may ubbi may tëj buntu yi ànd ak am doole nag ndax yàlla daf maa may kàttan alal maasi def ay mooy yàlla wa aynullahi tanzuruñ te bëtu yàlla bi moom mi ngi may xool rek moom tijji naa buntu bi bëtu yàlla baa ngi may xool njaaloo naa bëtu yàlla baa ngi may xool maa ngi def ay bàkkaar mu ni bëtu yàlla baa ngi may xool te xam nga mbokk yi borom bi subhanahu wa taala ku am kattan la ca faat la foofu ci saasa ci faat la foofu ci saasa waaye déet du ko def mu ne yaa zallatan kutibat fi ghaflatin dhahabat yaa xasratan ah baqiyat fi lqalbi tan tuxriquni mu ne yaa zallatan kutibat ci man de maa ngi jooy bàkkaar bu ab tarxiis boo xam ne masoon naa koo tarxiis ñu bindal ma ko bàkkaar fii xaflatin te fekk maa nga sàggante waaye zahabat romb na mu ni yaa xasratan maa ngi yëg naqar nag tey baqiyat woo xam ne dafa des fil qalbi ci sama xol tuxriqu nii mi ngi lakk sama xol bi image bii ngeen di gis xool leen ko kii ndax nekkoon na ci li neex yàlla wala déet yàlla mooy ki xam waaye bu fekkee nekku ci woon dafay méngoog wax ci yaa zallatan kutibat maa ngi jooy tey bàkkaar tarxiis boo xam dañ ma ko bindal ay bàkkaar mu ne biñ ma ko bindalee kat fii xaflatin zahabat ak càggante la te wees na mu ni yaa xasratan maa ngi yëg tey métiti xol baqiyat fil qalbi mi ngi des ci sama xol bi toxriqu nii mi ngi lakk sama xol bi te mënatumaa dellu gannaaw rectifié ko ndax def naa bàkkaar ba pare xoolal tey ki nga xam dafa amoon kàttan mu xëy ñàkk kàttan amoon ay bët mu xëy ñàkk ko amoon amoon limal yi nga am yëpp nga xëy ñàkk ko nga màggat mu wóor leen tey dee rekk la dese moo tax imam Fudayl ibn al-Ayyad da doon wax ni ah mu ni man day am naa juróom-ñett fukki at aw justuha wala ma jege ko fa maada uamilu wa maada antazir man de xamatuma lu may yaakaarate ak lu may bëggate ak lu may xaar nee na wér na ma ni ku yegg ci juróom-ñett fukki at rek daanaka rek saa boo yeewoo da ngaa war di xaar dee ndax amaan na waroon nga koo romb bu yàgg yàgg yàgg fekk waroon nga ko faatu te fekk yegg seegoo ci bis yu mel nii ci at yu toll nii kon mu ne yaa xasratan maa ngi yëg metti ci xol baqiyat fil qalbi mi ngi des ci xol bi tuxriqu ni di lakk sama xol wallahi mbokk yi am na koo xam ne tey mi ngi mi ngi yëg metti ci xol loo xam ne mi ngi koy misère loo bàkkaar la bu mu defoon ana cap ka bànneex ba nga ci yëgoon ana ana bànneex ba nga ca amoon bu dee lekk la ana mu rees na bu dee col ko ala mu ràpp na bu dee njaalo la ana bànneex ba dem na waaye loolu tey da ngay yëg metti bi ndax yaa ngi dajeeg sa borom xam nga tey ñaar day am nit ki ndax tuub na wala tuubul léegi tuub na sax bu mu am yaakaar yaakaar joo xam dafay mel ni ak dogu lay doon déedéet na yaakaar yaakaar ji am rek comme ni jullit war a yaakaar ci yàlla waaye mën ngaa tuub ba noppi te fekk borom bi subhanahu wa ta'ala nangulu la moo tax mu ni kon tey day looloo tax maa ngi yëg metti ci xol joo xam ne mi ngi daggate sama xol tuxriqu nii mi ngi lakk li nga xam mooy sama xol tamit mu ne daani anuuxu ala nafsi wa andubuha man de bàyyi leen ma sama bopp tey daani bàyyi leen ma anuuxu ala nafsi ma jooyal sama bopp li may jooy gis nga nit ñi liñ lay jooyal kooku amul benn njariñ nit ñi jooy yiñ lay jooyal déedéet kooku amul njariñ tey yaa war a jooyal sa bopp yaa war a tuubal sa bopp mu ne daani anuuxu ala nafsi bàyyi leen ma damay jooyal sama bopp li may jooy tey jii bi may dund ah mu ne wa aqtau dahra bi tazkiri wal xasani li ma dese ci dund gi ginnaaw tey dama ko bëgg a dog lépp ci di fàttaliku ak di tiit ak di jàq dajeeg sama borom mu ne daani asixu dumuan la nqitaa laha mu ne ko daa anka azli ya man kaana yaazuluni law kunta taalamu ma bi kunta taazuruni mu ne bàyyi leen ma daani asixu dumuan la nqitaa laha bàyyi leen ma ma jooy tey ay rangoñ yoo xam ne du am fenn fu ma ko àppal nag damay jooy rek ngir sama borom jéggal ma mu ni fahal asa abratun minha tuxallisu nii aman na benn rangoñ a ngi nar a wadd boo xam ne boobu rek ca la ma yàlla yërëmee sax jéggal ma allahu akbar wallahi loolu lu wér la mbokk yi nit ki maanaam mu toog mu xalaat boromam subhanahu wa taala mu jooy mu ni am na benn rangoñ boo xam ne même bu dul jooy yépp sax aman na am na boo xam ne bi muy wadd fi ma toll ci yëg yàlla am na boo xam ne bi muy wadd fi ma toll ci bëgg yàlla am na boo xam ne bi muy wadd fi ma toll ci ragal yàlla am na boo xam ne bi muy wadd fi ma toll ci tiit mbugalum sunu borom mu ne amaan na sunu borom dana ma xeex lu ca lool. image boobu ngeen di seen mu tëdd mu mel ni moom mooy wax mu ni man de maa ngi mel ni tey ci sama diggante ay mbokk ñoom ñëpp moom parixan tàlli ñareet ni nemm ni ner yëngatuwuma benn cër léegi say mbokk jàppale ñu ngi nii taxaw tiim la kenn ku ci nekk mi kay ma ngay solu kay ma nga peñew ñoom ñi ñëpp yi ñu defee toloo ci benn yow moo tax mu mu ni ka anni bayna tilka al ahli muntarixan mi ngi mel ni rek man maa tëdd nii tey tàlli ñareet solo tubay solo daal solo mbubb solo yére te gis ngeen ñii ci taxaw ñëpp kenn ku nekk mi ngi solo mu ne yow solo ci dara mu ne alal firaashi wa aydihim tuqallibu nii maa ngi tëdd ci sama kawlal waaye ñoom kenn ku ci nekk mi ngi may nabaj nabajeeg ay loxo man yëguma sax lu xew ndax man booba jeexal naa mu ni ka anni wa xawli man yanuuxu wa man yabki wa alayya wa yanaani wa yandubu nii mu ni am na koo xamante nii ma ngay juuxu am na koo xam ne ma ngi may raay am na koo xam ne may xool kee ngay jooy kee ngay yërëmtalu mu ni man loolu lépp yéen a koy def waaye man yëguma ko man lu ma defalul woon sama bopp jeex na mu ni waqad ataw bi tabibin kay yu'aalijuni ñi ñëpp di ay mbokkam ne kenn ku ci nekk technique boo xalaat docteur boo yaakaar hôpital boo yaakaar yaa ngi koy woo mu ni waqad ataw bi tabibin ba ñu indi benn docteur kay yu'aalijuni ngir yee na ma faj mu ni man bu ngeen ma tàggu woon du ngeen indi docteur tey mu ne walam ara tabiba al yawma yanfau nii man gëm naa ne tey du docteur may faj déedéet parce que li ma dal du feebaru docteur li ma dal feebaru àllaaxira la waa àllaaxira ñoo koy faj dem fa rek mooy tax ma wér xoolal loolu mbokk yi kenn ku ci nekk day jéem gis nga ñii ku nekk mi ngi solu yow solu woo ku nekk mi ngi am lu muy wax ak lu muy kiy jooy ak kiy nangam yaa ngi tëdd benn place ñi ngi lay wëlbatee ka raaya ka laay laal waaye yow moom da ngay dem ku nu yaakaar nag danañ ko indi hôpital bu ñu yaakaar danañ fa dem xoolal mbokk yi ni ñuy jaaxlee su boobaa ngir bëgg rek na nga dund ah wa ida almaniyatu anzabat ka azfaaraha tarakta kulla tamimatin la tanfahu waykatu arab ba nee na saa bu la dee ngaddee aw rëkkam wala saa bu la jamee ay weem loo takkoon tekkil te nga xam ne tey dootul jariñ wallahi wax na dëgg saa bu dee dikkee gajj la ay weexam mu ne loo takkoon tekkil te nga xam ne loolu moom dootul jariñ tey parce que tawati dee yonent yàlla bi nee na am na ñaar yoo xam ne amul saafara màggat ak dee màggat boo ko defee kenn mënta fexe ba nga dellu si waat gone waaye dee saa boo ko defee kenn mënta fexe ba nga dekkiwaat déedéet moo tax mag ma nga xam ne dafa ñàkkoon alal allahu akbar ñàkk alal lool ci jamonoy ndawam mu dem ba am juróom benn fukki at jëm juróom ñaar fukki at sunu borom daal di koy wërsëgal alal nag alal joo xam ni moom xamut sax fu alal ji toll lii borom xam-xam yi siire yi ñoo koy nettali waa ji nee na jàng ji dëkk bi xale yi jigéen yi ñëpp daal di koy topp ndeysaan ndax lan alal ji ni mu bare ndax xam nga jigéen moom ba ñu màgget bu fekkee alal ma nga fa nee na jamono jooju xale yi jigéen yi nee na di ko toppatoo toppatoo goo xam ba mu juddoo ba tey musul woon a foog ni jigéen yi àddina mën na lii nee na waaye saa ba tëdd damay onko rek nee na juróom-benn xale yi jigéen daal di ñëw daal di koy tiim ni ko aninal aninaka tuulal layli yushiruna ñun sa onk yi daf ñuy déranger dañu bëgg bul onkati dañu bëgg dara du la métti ci maada tashtaki lan moo la métti ah mu ne ashtaki samanin juróom benn juróom ñetti fukki at moo metti ndax sama juróom ñetti fukki at yii ma am tey su ma la suñ ma laajoon ci alal loo am dama koy joxe ngir delluwaat ndaw ngir mën a bànneexu waaye mu ne juróom ñetti fukki at yi moomay moom laa jàmbat moo tax mooy onk kon mooy wane ne nit ki su fekkee tëdd na ci barab boobu amul lenn lu koy mën a jëriñati lu dul lëm doon jëf
والموت يجلب من كل عرق بلا رزق ولا هوان وليخرج الروح مني في تغرها وصار ريقي مريعا حين غرغرني وغم بوري وراح الكل وانصرف بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني
mu ni washtadda naz'i wa saara al mawtu yajzubuni ñu ne metti na lool gis ngeen image boobu ngeen seen sànq mu wane ku mel ni kuy accidenté gis ngeen bi mu yegsee rek dafa xulli bët yi su ngeen seetloo dafa yegsee rek mu xulli bët yi loolu moo waral doomu aadama ji su faatoo dafay xulli bët yi ba mu ubbeeku moo tax yonent yàlla bi jàngale ñaan boo xam moom lañ koy gëmmalee bët yi lan moo tax yonent yàlla bi nee na génn ak ruux gi day mittitlu day toll foo xam ni bët dootu ko mën a muñ day buqeeku di xool ruux gi nee na wastadda naz'i wa saara al mawtu yajzibuni wastadda metti na te tar naz'i xëcc gi ñu doon xëcc ruux gi mu ni wa saara al mawtu yajzibuni dee nag di xëccanteeg man mu wóor ma ne man maa ngi dem fi ne yeggaguma min kulli irqin bila rifqin wala hawanin ne dafa mel ni mboolem sidit yu nekkoon ci sama yaram rek ruu gi da caa fa lëmasu ba noppi doog a génn nga xam ne ruu gi jamono bi muy génn maa ngi sentir mboolem luy yàq ak luy sidit ci sama yaram mi ngi metti te noonu la ko alquran waxee mu ni wastaxraja arruuxa minni fi tagarguriha wa saara riiqi mariran xiina gargarani nee na ruugaa ngi génn nag waaye jamono bi ngi génn mi ngi xurxuri xurxuri gu metti goo xam ni nit ñaa ngi ma tiim waaye ñoom yëguñ lu xew nee na jamono jooju maa ngi yëg samay taflit samay taflit mi ngi weqat mu wóor ma ni taflit yii bokkut ak yama daan am xiina gargarani bi nga xamante ni ruugaa ngi nag ci xor ci xar-xari moom la sunu borom naan fa lawla ida balagat alxulquum wa antum xiina idin tanzuruun wa naxnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruun tëraay bii mbokk yi kenn ku ne war na koo bàyyi xel mu ni wa gammaduuni wa raaxa alkullu wansarafu allahu akbar mu ni wa gammaduuni ba di xulli woon léegi gëmm nañ ko wa raaxa alkullu wansarafu ñëpp daal di génn nag bàyyi ma fa man kese imaginer mbokk mi man ma imaginer sama bopp jàppal ni yaa tëdd nii man ma jàpp ni maa tëdd nii mu ne wa gammaduuni ñu daal di may gëmmal wa raaxal kullu ñëpp génn wan sarafu dem seen yoon xoolal mbokk yi jamono bi nga tëddee moo xam ci morgo bi la moo xam ci kër gi la yow kese mu ni baadal iyaasi ginnaaw boo xam def nañ pexe yi man yëpp yaakaar tas ni dootuma dundati kon jeex na léegi li des mooy wajaddu fii shiral kafañ yi ñu commencé nag di def ay effort nag fu ñu jëlee luñ ko sàngee mu ne wa qaama man kaana ahaba annaasi fi ajalin aw xibbu nnaasi fi ajalin mu ne maa ngi doon am yaakaar ne sama xarit biñ naan xaritu benn bakkan même bu amee ñëpp buñ dawee sax moom day des moom ndax liñ naan diw ak xaritu benn bakkanam la wallahi loolu ci dund gi la du àllaaxira mu ni ma jàpp ni ki nekkoon xibbu naasi mooy des mu ni kooku moom dafa jug rek fii ajalin yàkkamti daw fu mu jëm muy naxwal mu gassili mi ngi wuti ab sangkat yatii nii mu ñëw yu gassilu nii ngir man maa sang xoolal imaginer lu mel noonu nga tëdd yow sa tëraay bi ki la gënoon a sopp sa jëkkër daf laa bëgg lay wane ni bëgg na la mooy dalaa takk dalaa jox can di la dundal di la fajal say soxla di la aar lépp mu di la ko defal waaye fii moom pare ngeen déedéet bu dee guddi la du ngeen bokkaat benn lal tëraay bii kay yow kese kii kenn du ko bokk ak yow su dee jabar la kadalik tëraay bi moom du ko bokk ak yow demal ma dem rek mënatuñu ma bokkati déedéet mënul nekk wala yastawi al ahyaau wala al amwaat ñiy dund ak ñi faatu borom bi mënu mënu ñoo yam de déedéet duñ mën a ànd mu ne su ko defee ñu daal di wuti sangkat nag ngir mu ñëw daal di may sang
ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن
gis ngeen mbokk yi li ma doon wax ni baat boobu dana ko répété waat lu bari waaye mbokk yi xoolal kii mu tëdd tey yow yaa doon sang sa bopp tey dañ lay sang xoolal rek tànk yi nu ko neex la koy yaawee da koy wëlbati bëmëx ko tey bëmëx nañ la defoo dara wëlbati nañ la defoo dara gis ngeen nii ngeen yërëm yëpp lañ summi lii ngeen seen ñu teg ko ci kaw day sunnaa ko jàngale ndax dañ koy suturaal ngir bañ a jàkkaarloog awraam de kenn du ko ko tegal gis ngeen ñaari nit tiim la kan moo lay mujjee mbokk mi kan moo lay mujjee kan est-ce que xam nga kan la kii nga jàppanteel daaw amaan na boo demee boo demee moo lay sang yow xoolal tey mi ngi la tiim di la wëlbati di la bëmëx di la bomb te defoo dara yëngatuwoo moo tax gis nga mbokk yi wallahi rafetal rek moo am solo xamoo ci lan ngay mucc xamoo ci yan loxo ngay mucc xamoo fooy mujjit nag gis nga ñaar ñii ko tiim moom mii tëdd tey yow mii tëdd tey nan nga doon jëflanteeg ñaar ñii loo jàppaloon kii loo ko dencaloon lan nga ko yéene woon tey moo la tiim mboolem fuy la fu ne ci sa yaram bi dana fa dugal loxo ba ci ron morso bi gis ngeen ko da ciy dugal loxo ndax da lay sang te doo ci man dara doo mën a yëngatu moo tax kii dëgg-dëgg moom mooy ki tumuraanke gi
قام من كان حب الناس في عجل نحو الموسل يأتيني يوسلني وقال يا قوم نبغي غافلا حذقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأخرجني وأو
gis ngeen kon mu ni wa qaama xibbu nnaasi man kaana xibbu nnaasi fi ajalin ki ma gënoon a sopp gaaw jóg ci gaaw naxwal mugassili yatiini yugassilu ni dem seeti sangkat bi ngir ñëw sang ma mu ne nga ni wa qaala yaa qawmi nabgi gaasilan xasiqan mu ne gaa yi que ndax xam ngeen fi sangkat bu mën a sang néew koo xam ne xam nañ ko ci ñor ci sang néew koo xam ne gor lay doon ku ñor lay doon ku mën a nëbb ay ayib lay doon allahu akbar lan moo tax mu ni ku mën a nëbb ay ayib wallahi mbokk yi gis ngeen kii tëdd tey dina am ci ay ayib loo xam ne islam dafa charte sax nit kiy sang néew mu nekk ku maandu ndax léeg-léeg mën nga gis ay mbir yu ñaaw ay mbir yu salte ay mbir yu sibu ay mujjantal yoo xam ne ëpp naa nettali même nit ki mën naa nekk ku baax sax ku nar a dem aljanna sax waaye nag xam nga doomu aadama ni mu doya dee nopp yaa ngay xelli ginnaaw kër yaa ngay génn bakkan yaa ngay xelli lépp te ki lay sang faw mu gis ko parce que bu ko gisul du la mën a sang amaan na yow jamono bi nga toog di génn àddina ginnaaw kër yaa ngi génn ci sa yére yi yëgoo ci dara saw maa ngi génn ci sa yére yi sa bakkan yaa ngi xelli li nga mujjee lekk muy orange ji mi ngi gall ci sa bakkan yi ak sa gémmiñ ji di génn nga doya di lool nekk koo xam ne da ngay soofa sax a xool wallahi bu fekkee nit ku gaaw a teey xel la bu la tiimee sax day wàccu waaye loolu lépp mu di la ko muñal fompal la mboolem fu salte nekk gis ngeen kii ngeen di seen xool ngeen loxo bi fi mu ko yoor parce que bët bi warta tege ci awra ji mu jël loxo bi yoor ko ci ron morso bi pour raxasal la fa awra ya nekk ndax awra ya fa mu nekk salte mën na faa nekk amaan nag gis nga kii kii moo baax ci yow gis nga bu la defal loon lii dan lay sang ba noppi rek teg la ci perkaal bi rek ñu seen perkaal bi tooy ndekete salte yeeg dem àll yi mooy génn waaye kii moo lay defaral ba nga xamante ni melokaan yooyu bu dañee suñ la tegee kenn du la sit kenn du la jéppi
دعوني على الألواح منطلحا وصار فوقي قرير الماء ينضح لي وأنجب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن
mu ne fa jaani rajulun minhum fa jarradani benn waaye daal di yegg si rek fa jarradani futti ma ba ma set wecc kan nga ñemee génn ci mbedd mbokk yi mu dab la naan dalay summi kan moo lay fekk kan moo ñemee dugg sa biir wanag wa ngay sangoo te tàggoowut kan moo ñemee ñëw fekk la sa biir néeg ngay futteeku xoolal tey nit bu doon summeeku biir néegam rek nit dugg te nuyoowut tey nga tukkal àddina bi nit su fekkoon daf laa toroxal toroxoo ni waa ji ñëw mu summi ma min athiyaabi wa aaraani mu rappeleel ma solatuma sax tubay tubay ji ma sol moo ko summi keroog wa afradani mu daal di may setal ba ma set wecc ma nekk man kenn mu ne wa awdaani ala al alwaaxi muntarihan mu tàllal sama loxo yi ma ni bàcc ni làcc ci kaw sangukaay bi mu ne wasaara faw wasaara fawqi xariiru lmaai yan yunzifu nii mu commencé di sotti ndox mi ci kaw nag di ma setal di ma sang wa askaba almaa min fawqi wa gassala nii di sotti ndox mi rek te sañu maa bañ même bu nekku pëyëx ci sama kanam gi du ma bañ parce que maa nangu tey aw ma benn lu may bañ tey mu ne xaslan salaasan mu sang ma ñetti sang wa naadal qawma bil kafani mu daal di pare daal di woo nit ñi ni leen indi leen nag càngaay yi bu ko defee ñu daal di indi càngaay yi nag commencé di ma solol
ألبسوني ثيابا لكنها وصار زادي حلوقي حين حنقني وأخرجوني من الدنيا فلا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني
mu ne wa albasuuni ñu daal di may solol nag siyaaban ay yére yoo xam ne laa kimaama laha yére yoo xam ne amul loxo tey bi ngay ñawlu da ngay taamu na loxo yi gudd na loxo yi gàtt na mel nii na mel nale tey amuloo taam parce que yow da ngaa mënta wax yow bay taamu mu ni albasuuni solol nañ ma siyaaban yére yoo xam ne laa kimaama laha yére yi ndeysaan amut loxo amut bopp fu ñu koy dugal mu ni wasaara mujj na nekk zaadi sama yóbbal xanuutu yi mooy nekk parfum bi kese xiina xannatan mu ni ki ma defal gëtt gi de baax na ndax moom joxuma ñu ma benn yóbbal bu ma yóbbu lu dul parfum bi te parfum bi kat du butéel ba ngay yóbbu waaye jëmmi liñ la xeeñal moom ngay yóbbu mu ni wa axrajuni min addunia fawa asafan fii nag mbokk yi moo moo man man man li ma yëg ci sama xol wallahi fii moo gën a triste wa axrajuni min addunia léegi nag génn nañ àddina xam nga dee nga génn nga àddina waaye nag biñ la sangee ba noppi ñu génn la wanag bi mu wóor la ni fii moom sayee léegi amatul xaarab leneen xam nga da ngay dégg xaar leen dañ koy sang xaar leen dañ koy jullee xaar leen ñi ngi ñaw càngaay bi xaar leen ñi ngi waaj a pare waaye pare nañ ba tëral ko xaar leen dootoo ko déggati moo tax mu ne wa axrajuni min addunia génn nañ ma àddina mu ne wa faawa asafan maa ngi jooy tey li nga xamante ni mooy pertaange gi ma nar a dal tey ala raxiilin ci tukki bii ma nar a jëm bila zaadin yuballigu ni te aw ma yóbbal bu doy boo xam moom laa yóbbuwaale
وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم رد عليه صلوا علي صلاة لا أكون لها
mu ne wa tahammaluni ala al aktaaf léegi nag yenu nañ ma ci mbagg yi saye jeex na léegi moom amatu xaar leen hammaluni yenu nañ ma ala al aktaaf ci kaw mbagg yi arbaatan arbaatu nekk juróomi min arrijaali ci ay góor wa xalfii mi ngi fees dell ci sama gannaaw man yusayiu ni ñi nga xam ñoo may gunge allahu akbar mbokk yi nee na yonent bi saa sallam mu ni boo tollee fii su fekkee waa ji ku nar a baax la gis nga yéex bi ñuy yéex ci sang beeg yëpp day wax yéen samay mbokk toskare ñeel na leen gaaw leen gaaw leen gaaw leen damaa yàkkamti damaa yàkkamti allahu akbar wallahi mbokk yonent moo wax loolu néew bi moo naan gaaw leen gaaw leen damaa yàkkamti damaa yàkkamti lu tax ndax bi mu tolloo ci sukuraat sunu borom daf koo wan ci xéewale ajana ya da koo wan ci soxnay ajana ya da koo wan ci taaxi ajana ya da koo wan ci mboolem la nga xam ne mooy xeeti meññeent mag firwiye moom mu wóor ko ni tey ajana la noona dem looloo tax mu yàkkamti kii fa mu jëm xam na ko moo tax yent yàlla mu ne danaan gaaw leen damaa yàkkamti waaye gaaw leen waaye yent yàlla bee su fekkee ku nar a texee di la nee na su mënoon a rëcc jamono bi ngeen ko yenu dafay rëcc daw ndax lan lay wax danaan yaa waylaha ayna tazhabuuna bi toskare ñeel na néew bi fu ngeen jëm ak moom fan ngeen jëm ak moom yent yàlla bi nee na bu ngeen ko yëgee ak bu ngeen ko yëgul mi ngi yuuxu yuuxu bëgg ngeen dëpp ak moom yoo xam ni nit ak jinne rekk ko dul dégg waaye luy rab ci kaw suuf mi ngi dégg yuuxoom yooyu
ولا سجود لعل الله يرحمني ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيم في الأوطان والسكن قل لو علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني gis nga foofu mu ni sallaw alayya salaatan jullee nañ ma nag tey gis ngeen mbooloo mi ñu ngi taxaw di ko jullee salaatan jullee goo xam ne laa rukoo laha amul rukoo wala sujuuda amul sujuud laalla allah amaan na sax yàlla yarxamu ni mu yërëm ma mbokk yi xoolal gii julli ñi ngi lay jullee tey ndax daa nga julli d'abord ndax daa nga julli wallahi julli gii buñ la ko jullee te fekk daawoo julli du la jariñ waaye daan nga julli te xulaa mucc ndax la tax yàlla ni damaa bëgg ñuy julli ba noppi di wëlbatiku naan ña doon julli danaa leen mbugal ñan alladina hum an salatihim saakuun est ce que yaa ngi julli ca waxtu wa est ce que yaa ngi sàmmonteeg njàpp ma laap ma est ce que su dee jigéen nga yaa ngi sàng say cër na ko l'islam bëggee est ce que rukoo ak sujood yaa ngi koy matal est ce que yaa ngi def na julli na yonent bi daan jullee ndax moom la yàlla yabal ci yow yëpp ay laaj la yoo xamante ni jamono biñ lay jullee julli moom mi ngi taxaw moom su fekkee daa nga julli julli gu mel ni gu julli gi yonent sa salam su boobaa day texe nga léegi kenn ku nekk mu laaj boppam nag bu tolloo fii ñu jullee ko est ce que moom julleem yi amal na ko njëriñ tey est ce que moom bari woon na ay nawaafil yoo xam ma nga topp ci julli ga yooyu ay laaj la yoo xam ne kenn ku ci nekk tey da nga ko laaj gis ngeen sànq avant muy continuer dafa bind amaana yéen ñii di seetaan ci gis ngeen écran bi lim ci bind mu ne amaana yéen ñii di seetaan film bi muy ñëw fekk na deewagu leen wallahi ñun lay waxal deewagunu mu ne kon sa sa chance a ngi ni sa mille chance a ngi ni pour nga gaaw dëpp nga préparé ndax kii tëdd tey jàppal ne yow la war a doon comme nekkul yow sa chance la léegi nag yow kii moom perte na waaye yow yaa des mu ne préparé nag balaa nga yegg si foofu nga xam fa nga toll
وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عيني
gis nga ma ne wa anzaluni ila qabri ala mahalin indi nañ ma ci armeel nag ñu wàcce ma ci sama bàmmeel nag ala mahalin def ndànk di ànd ak yërëmtalu dinaa koy wax mbokk yi parcelles yi ñuy xëccoo wallahi du armeel ya fii la parcelles ya ñuy xëccoo du armeel ya fii la waaye foofu kenn du fa xëccoo kenn kër jàmbur ak kër jàmbur lu mu xat-xat buñ la fa gasalee kenn du kaas lu tax loolu parce que foofu mooy parcelles yu dëggu ya kër goo xam ne mën nga kaa moom téeméeri at ak nangam te kenn du ko xëccoonte yow ndax kenn bëgg ko te lu mu tuut tuut nag bëgg nga kër ga lu mu xat xat xat même boo cay dugg da ngay wetu bëgg nga mu ne ñu wàcce ma fa ndànk ñu yabal benn waaye ni ko duggal ci biir barmeel mu dugg ngir lan yul xedu ne ngir mu mën maa defal mboqutal ci biir xool ngeen waa ji tiim image bi dafa desee leer gis ngeen waa ji tiim mu ni wa kashafa thawba an wajhi li yanzura nii soppe sama dal di ñëw muri sama xar kanam ngir mu xool ma xool gu mujj allahu akbar xoolal xool gu mujj googu mu ni wa asbala dama min aynayhi agraqani ne ne sutti na ay rangooñ yoo xam ne bu fekkoonte ne rangooñ dana mën a labal nit kon man mi tëdd tey damay lab ndax sotti na rangooñ yërëm tëlu waa jaa ngi dem dootul dellu si sotti na rangooñ yërëm tëlu kii moom sayee dootuma ko gisat bi muy xool bu mujj bi sotti na rangooñ yërëm tëlu kii fa mu jëm tey lu mu fay fekk sotti na rangooñ yërëm tëlu kii est ce que dina bokk ci asxaabul yamin wa wala asxaabu shimal loolu ay laaj la yoo xamante ni mooy jooyloo ki nga xam ne moom moo koy doon xool
الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة gis ngeen joxañ biñ doon joxañ sànq joxañ biñ doon joxañ mooy lan mooy waajooju ñuy wax xibbu naas ci gën a soppi gis ngeen waajooju jonkan mu ni ki nga xamante ni moo gënoon nekk sama soppe tey daal di wax indi leen birig yi ñu def ko ci mboqatal gi ba kenn dootu la séenati mu ni wa qaala hallu alayhi turaba wagtanimu sutti leen suuf gaaw ñu commencé di sutti suuf ci sa kaw foofu nag mooy dernier gisante bi nag moom nga xam ne lu bon bon sax gisoon nañ sa xar kanam gi lu bon bon ñu ngi seen sa perkaal bi biñ la defee mboqatal ba baare birig yi ba noppi nag ñu ne sutti leen suuf nag léegi ñuy sotti wagtanimu ngeen màng xusna sawaabi tiyaaba yu bëri min arrahmani zil minani lii mooy am tiyaaba pour ñu am lu la neex pour ñu wutal lu la neex sutura suñ la mën a defal lu dul wàqi ba mu xóot ñu suul la fa defuñu la gën في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني mbokk yi xool leen tëraay yii ni mu jegeyantee lii ngeen di seen muy jël yi ay armeel la mu ni fii zulmatil qabri ci biir lënd mu bàmmeel la umma hunaaka yaay newu fa wala abun bàyyi newu fa shafiqun bu am yërmande ci man ba mën naa taf ci boppam wala axun frère newu fa wala sœur yu annisu nii man maa wetti bi kenn du la wetti bi gis nga ñii tëdd wallahi ñoom la ñuy wax jiiraanu qurbin la yatazawaruun dëkkandoo yu jege ay buntu kër te kenn du fëgg sa buntu kër morom dëkkandoo yu jege ay buntu kër kenn du xewle ba sa morom dem ñii kenn du xewle ba sa morom dem gis nga li ñuy lu ñu jegeyoo jegeyoo jegeyoo jegeyoo kenn du xewle ba sa morom dem kenn du fëgg sa buntu kër morom kenn ku ci nekk li kulli mri'in minhum sha'nun yughni ku nekk am nga lu ko doy ndax kenn ku ci nekk fi mu nekk nii lam lam yor ci ration da ko doyut ndax tukki bi daa gudd àllaaxira yegg seegut mi ngi ni nem mu tëdd benn place amul lu mu sàngoo waxtu sedd amul lu muy sol amul lu muy wël wëlbatikoo mënul génn mënul doxi ay soxla dematul marché liggéeyatul takkatul ay takkaay solatul daal mi ngi tëdd benn place kii kii wallahi luñ ko defalul amu ko kii luñ ko defalul amu ko lu mu deful woon amu ko moo tax ñi nga xam ne dañoo nekk fii di wax ñene ci àll mi da nga dégg diw noppalu na ñay wax mbokk yi man wallahi su ma ko déggee damay tiit kan moo la wax dafa noppalu kii deena lañ war a wax ki noppalu dëgg dëgg dëgg mooy ki jaar dem àjjana waaye kii la muy fekk moo gën a métti fuuf lii mu bàyyi fii ci ginnaaw même bu dee ko nar a dem àjjana la ndax tiis wa nekk ci bàmmeel yent yàlla bi daan ci muslu ci yàlla subhanahu wa taala القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وما لي صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدوري الشام واليمن إن
xadis bi yonent yàlla saa salaam mu ne igtanim xamsan qabla xams profitool ci juróomi mbir balaa juróomi mbir ñëw sababaka qabla haramika tey ndaw nga kawar gu bay jaaw génn gut màggatagoo say tànk talee gut say yax mën ngaa rufoo mën ngaa sujjuur profitool gaaw wa sixataka wér gi qabla suqumika balaa ngaa feebar bis day ñëw nga tëdd doo mën a julli doo mën a naafila doo mën a woor wa ginaaka qabla faqrik tey yaa ngi ami dërëm dërëm ak i ñaar dërëm bis day ñëw poos bi day vide dara du ca nekk gaawal profito wa faraagaka qabla suxlik tey da ngaa am jot gaawal bis day ñëw da ngay ñàkk jot wa xayaataka qabla mawtik tey yaa ngi dund ëllëg da ngay dee kon profito mu gaaw afwin min ka yaa amali kon de yaakaar tas na waaye nag du tasee ci sa côté yow yàlla kon ñu ngi ñaan yàlla nag ñu defal ak njéggal mu ne fa inna nii man de tey muusaqun bi zanbi damaa mel ni ku ñu yeew ba ma dëgër ci ay bàkkaar murtahanun damaa mel ni ku ñu tayle te xam ngeen ku ñu tayle fi yëg joxe woo lañ la tayle doo fa jóge kon tay dañ maa tayle ci buntu ajana mënumaa dugg lu tax ñu tayle ma buntu ajana mënumaa dugg parce que damaa fees jël ki bàkkaar waaye li gën a jeexal sama xol nag man néew bi muy taqaasama al ahlu maali baada man sarafu sama waa kër dañoo jóge ca suulukaay ba rek yegg nag commencé di lijjanti di nuqi armoire ba nuqi coffre fort ba nuqi saag bi jël caabi oto bi di commencé di séddoo sama alal mu ni loolu moom a gën a metti man mu ni wasaara wisri ala zahri te bàkkaar ya ma doon def lu lu ñu séddoo séddoo alal ji sama kaw lay këpp fa atqala nii mi ngi nii diisal ma gann te samay mbokk taluñu ma ñu ngay séddoo sama alal bokk na ci yi ma gën a metti mooy wastabdalat zawjati baalan laha badali sama soxna amul lenn lu may fayee ak ni ma àndee woon ak moom ak niñ doon dundee dund gu neex amul lenn loo xamante ni moom moo mën a seral xolam lu dul gaaw teen ji rek seeti geneen góor gu dul man wa hakkamat huwa fil amwaal ba pare nag bokk na ci yi ma gën a metti mooy sama soxna jëli geneen góor goo xam ba may liggéey fekkeewu ko ba may tabax fekkeewu ko ba may signé ay chèque fekkeewu ko bi may liggéey sama alal ji fekkeewu ko moom mu dem jëli geneen góor gudut man ñëw ni ko kaay nga remplacer sama jëkkër def naa la chef ci alal ji mu ne maa nga nekk armeel ya waaye ndekete sama alal am na geneen góor goo xam ni bokku ca woon te léegi ñëw na nekk sama moom sama alal te moom deful dara moom dañ koo woo rek mu ñëw daal di yilif kër gi mu ni wasta wasa yarat ibni wala wasa yarat wala di bokk na ci yi ma gën a metti mooy sama doom ji ma juróon moom mu ñëw nekk bàyyi jiitle ba noppi waaye jël sama doom bi def ko jaamam li yax dumahu ngir mu koy doxal ay soxlaam te man maa jur ba pare def ba fi mu ni wasaara maali xillan lahum bila samanin mu ni sama alal léegi lew leen te ñum defuñu dara dañoo jóge fële rek ñëw ñu woo leen ñu dal dëkk mbokk yi xoolal loolu ni mu mettee nit ki moo tabax këram geneen góor ñëw dëkk yaa moom sa alal geneen góor ñëw jël yaa nangam geneen say doom geneen góor di leen yónni gis nga lii moo war a tax boo xamee ne sa soxna fii lay mujjeeg yow góorgóorlu sa digganteeg sa borom soo xamee ni sa borom kër fii la nar a mujjeg yow booy faatu muy takk keneen sa soxna booy faatu muy jë te mu góor gee ci gën a métti li ndax moom li mu investiroon lépp ba mu teree koo jaamu yàlla dañuy jëli geneen góor mu ñëw di ca noos say doom ñu yónnee ka di dina xaral de ka méttital mu ni lii bokk na ci yi ma gën a métti nga xam maa ngi ko yóbbaale fa nga xamante ni fa laa jëm te nga xool ni àddina def ña nga xam ne ñoo fi jiitu woon gaa yi xoolal ki nga xam ne dafa moomoon àddina ak li ci biiram ndax keroog bi muy dem am na lenn lu mu yóbbaale ki nga xamante ni bi muy dem lan la yóbbaale càngaay li parfum li ma lay dénk yow sama mbokk mi xudil qanaata min dunyaaka warda biha bu nit ñi xëccoo mu ne yow xëccool doylu donte addina amoo fi lu dul wér gi yaram loo am nga ne aw ma kër aw ma oto aw ma dara waaye am nga wér gi yaram mu ne doyloo loolu yow mii nga xam ne yaa ngi ji lu baax xamal ni yàgg yàgg yàgg yàgg di nga góob lu baax man a yaamal saalihan man yaamal saal zaratan xayran yara yow mi nga xamante ni yaa ngi ji lu bon xamal ni yaa ngi teg ci sa tànk ci dëgg sërëx booy tëmbul tàbbi sa fan mu ni yow bakkan kuffi ani la asiyaan te nga bàyyi mooy yàlla waktasi bii nga jéem a sàngoo fialan jamilan jëf yu rafet laalla allah yarxam na man yàlla yërëm la mbokk yi xoolal ñi ñii ay nit la ñuy faatu xoolal niñ mujjee tey seen bët seen gémmiñ yi mboolem lu ñu amoon ci ay cër borom bi subhanahu wa taala nangu na ko xool ni ñu doya dee tey kawar dootul saxati gis ngeen bopp bët bi dootul were ngi toog parce que fuqatiku na bëñ dootul yooyee parce que nekkatu fa gis ngeen melokaan wi ni mu doyee waar moo tax mu ni gaawal nga tuub nga jéem a sàkku li nga xam ne mooy ay tiyaab mu ne yow bakkan bi toskare ñeel na la tuubal te ngay jëf-jëf yu baax gis nga fii ngay mujj ay yax yu siddeek nii la waa bàmmeel mel ne ne amaan na boo paree yàlla soo xam dana fay ay yiw kon dañu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom day mooy suñu sang yàlla moo ko yónni maa wadda al barqu fii ak melxataa ngi melax di leeral saan di leeral yaman ñu ngi ci julli ci sa ñu ngi sant yàlla nag mi nga xam ne bu ñu yeewoo moo ñu yee waaye bu ñu gontoo moo ñu dekkalit nag ñu ngi koy sant ci xéewal yi ñuy defal njéggal gi ñuy defal rafetal gi muy def jëm ci ñun ak mbaax yu bari yi nga xam ne ñu koy defal lii de li may tëjee rek mooy li wax ci waa ji waxam sax amaan na film bi muy ñëw fekk na deewa boo yow profitool na nga góorgóorlu ba lii mu nekk loo xamante ni saa bu yegsee day fekk ci nga nekk ci lu baax lii de maa ngi jàpp ni mbokk yi képp koo xam ne mi ngi am xol bu dund comme ni ko yàlla waxee inna fi dalika la zikra fàttalikoo ngoog li man kaana lahu qalbun aw alqa sama wa huwa shahid wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain